ci yenn kaay yi. ci yenn yi. El Elhadj Ousseynou Ndiaye dal leen ak jàmm ci xibaar yéenekaay taxaw na ngir gàllankoor lépp loo xam ne nag jëm na ci fànn gu ni mel yéenekaay bi di xamal ne kay jamono ne loo xam ne nag jëm na ci marché yi nga xam ne daal mooy lakk loolee daal mën naa wàññi bokk na ca lépp loo xam ne nag jëm na ci bourse des cendres yi nga xam ne daal dafay faral di manqué sax ci yenn ci ay marché bourse des cendres yooyu danañu ko yokk yéenekaay bi dañu xamal ne kay dina am lu toll ci juróom benn fukk ko ci ay marché yoo xam ne nekk na ci réewum Sénégal jamono gi ndax njiitu koy yeesalaat yéenekaay bi sabab laaj di ñu xamal ne ndax dafay laajte ñi nga xam ne daal ñoo nekkoon ci gouvernement bu Macky Sall ndax dañ koy yeesalaat ne kay njiitu réew président de la République Macky balaa yàgg daañu ko gis réewum Sénégal ndax lépp loo xam ne nag jëm na gouvernement bu yees bii nga xam ne daal moom la war a taxawal jàpp nañ dat ba ñaari fan ci weeru avril dina ko amal fi nga xam ne nag moo di ca jam ñaajo yéenikaay bi dañu xamal ne l'observateur dañu xamal ne loolee nag askanu Sénégal ñi ngi koy xaar yéenikaay bi di Source A moom nag dalal ki nga xam ne nag moo di Youssou Touré lu bëri loo xam ne nag jëm na ci tolluwaayu réew moom Youssou Touré daal di yëkkati kàddu daal di koy jëmale ci ki nga xam ne nag moo di Khalifa Babacar Sall waaw di xam ne ne Khalifa Babacar Sall mi dañu ko war a bàyyi mu ñibbi ndax nag jafe-jafe yi nga xam ne daal nañ koy jànkonteel te yaayam ji nga xam ne daal moom daal ak mag la nañu bàyyi Khalifa Babacar Sall mu daal di ñibbi yees dëgg kay yéenikaay gaay yu bëri xëyee ko mu yéen monsieur Mabacoumba gi nga xam ne nag moo am ca diwaanu Italie benn waay bu ñuy wax moo doon dawala biis waaw gannaaw ba mu dawalee biis ba kay ba ca àll ba biis boo xam ne daal ay élève ko Afrique ngir dem ci biir réew nag ñu bëri di jëy ci géej gi loolee nag mooy xam na ne moom sax dam na ñetti doom yoo xam ne ci anam googee la faat moom Ousseynou Kay bu moytuwul la ko nar a dal du sedd ndax ñi nga xam ne ñooy kilifa yi nga xam ne ñoo nekkee foofee dañoo mer ba futu ci jëf ju ñaaw ji nga xam ne daal jàpp nañu ne moom moo yëngu ci wàllu googee dañoo gis na réewum Sénégal lépp loo xam ne nag jëm na ci wàllu àll ay jafe-jafe lañ ciy jànkonteel bu dee Ndakaaru njaay jël jóg gi nga xam ne daal maanaam daal nga dox ba gis àll la boo xam ne daal ay garab dong nga fa nekk ay jafe-jafe dëgg la bu dee nag àll yi nga xam ne daal jotoon naa am ci réewum Sénégal yenn ci ay kilifa wala sax yenn ci ay ne dina na saxal lu mel noonu ne daal moom nga xam ne moo jiite seen gannaaw ay kilifa yu bëri yoo xam ne daal jaar nañ fi yéen kaay bi duñu xamale moom Alioune Sarr na ci ñi nga xam ne ñoo gën a yàgg ca poste boobee